an wa aba rafian aba rafia wa zaydan ak seet daahum xoo na leen moom yonantu bi li tëj yi ngir ni mën a ngi sa dikk annisaaw jigéen yi wala am naa doom ya muy soxna yi war a ñëw parce que dégg goo sawdatu ak ñëwam wa bañ luñ fere yow ba ñëw nag maam xalif ne lañ fere ca yoon ba mu ñëw sax man xam naa ko laan lañ fere ci transport ba wa bi xam si ma ina juróomi téeméer ci xaalis suma baaxirin topp ñaari kilé wa ay na la dimbandikoo rufaqaa u fekkeeri luus ci biir malaayka ñaar téeméer ñaar té juróomi téeméer ci xaalis ci dinaar boole kook ñaari gëléem moom lañu ñu fere def ko ci voyage wa pour ñi mën a jëli doomam ya ak maanaam ñoo ñi mën a ñëw ca Màkka moo tax ndeysaanam nag Fatima ñëw na Umu Kulsoom ñëw na Sawdatu bintu Sam'a mooy soxna sa Usaamatu bnu Zaydin ñëw na Umu man ñëw na waaye moom yeetu ñëwut ndax moom dafa fa desoon seen jëkkër ja euh, moom jëkkër ji lañ ko mayoon muy sidna Ousmane moo war a andi ak ñëwam euh, Seynabu tamit ñëwut ndax moom booba ki ko doon denc ab xéeféer la moo ko tere woon na ko doo gàddaay yi mooy alliance yi ndax ki njëlbéenu lislaam daga noon na yéeféer denc ab jullit waaye nag bi yonent bi ñëwee ci xareet badar ci jamono jooja ci la loolu xëcc la yàlla wàcce aaya ji nag ne xaraam na bis ni ki sax sabab bi sax ngi jaaree ci diggante Seynabu bi ñu alliance yi loolu mi ga moo tax bi juróomi téeméer yi demee ànd ak ñaari gëléem yi Zaydu ak maanaam Aba Rafiya dem wa atat ci la dikk Ummu Ayman moom la daan wax Ummu Ayman ummi baax da ummi Ummu Kulsoom tamit ba tey atat jami'an boole seen wal bid'atu lum woo mooy Fatima mi daan wax ne bid'atun minni moom tamit Zahra bay aji leer ñëw na wa atat dikk na Sawdatu bintu Sama usaamatu usaamatu tamit ñëw na ay dan ba tey ñoom ñii ma lay wax nag ñoom ñëpp lam tanalul jotulul leen ax na waaye bi dafa am ñoo ñoo déggut déggoo mu wax roqiyatu déggoo mu wax kon da ko ko laaj mu ne xam da ko ko laaj na mu firi la ko mu ne su ma kaana topp nekk na roqiyatu roqiya maa wax Ousmane ànd ak Ousmane Ousmane a ko war a andi kon bi problème Ousmane la kasaa naka noonu saynabu saynabu lahun na ñaal na ko da koo màggal sawaaw sax bi bi abiyaas yi ci abiyaas eh, eh, doomi ni bàjjanam la doomi bàjj Seynabu doomi bàjjanam maanaam abiyaas la abiyaas boo ko xamut man mooy ki nga xam ne a jaaratu xettali na ko boo ko xettali xëy léeg-léeg xëy jamono wa faddatu njot na ko alxalaatu caq ba alansama mu abaaw bay ak très jaam day junj ab xisa maanaam abiyaas yi dafa bokkoon ca juróom-ñaar fukk yañ jàppoon jaam ca ba badar xam nga jàngoon nga ne rayoon nañ ci ñoom juróom-ñaar jàpp ci ñoom jaam juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukk yan jàppoon nag ci la ab xaas mii di jëkkëri sëy na bu ñu bokk euh, fekk bi yonent bi xooyee Omar ibnu Xataab laaj ko ne ko waaw ñii ma jàpp jarger lu ci sa xalaat ne ko ñii de ñoo saboote ñoo ñu saboote génne ñu suñ dëkk ba jël suñu alal ya euh, desel la xeex ak ñun coono bu ne ñu tag ñu da nga leen war a fay rek loolu laa ci xam mu ne ko yow sa xel dafa sa xol dafa xiis yaag Seydina Muusa yéen a niroo jikko mu laaj nag yenoon mu laaj maanaam mu laaj abu eh, Aboubacar Aboubacar ne ko ah ñu di say mbokk lañ te dañ laa réeré rek moo war a lañu teg la lii waaye buñ la xamee ni ma la xamee woon kon de dañ lay taral waaye duñ la def lii comme léegi diina ji amagul doole te soxla nañ ndimbal bu nañ jàkk ji muy néegam yàlla bi amaguñ luñ ci def ak leneen li ci aju nang leen laaj njot kenn ku ci nekk am lu mu war a joxe ñu mën koo dimbali ci diina ci yonent bi nag léegi ne ko yow da ngaa yore xalab yonent yàlla Ibrahima mi nga xam ne ku rafet kii la xoon tabi'ani fa innahu minni wa man asaani fa innaka ghafurun rahim kee nag moom dafa yore xolab yonentu yàlla Moussa ba moom boo xoon rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw azaban alim noonu la ko jëlee ci par saaba yi bëgg nag mu mujj jëfandikoo xalaatam Aboubacar bi bàyyi xalaatam Omar ba laaya ja wàcc nag ne xalaatam Omar bi nga waroon a jëfandikoo da nga a rey ba mu wàccee rek yonent bi jooy Aboubacar di jooy Omar ibn Xattaab koy seet si leen ne di wax leen ma ko su ma ko mënee jooy su ma ko mënul jooy jooylu yonent bi ne ko maag Abubakar mii de bu toxatoon a yërmande yàlla yàlla tëkku nañu ci mbugal mu gën a jege fii ñuy weer suñu sér bi fii ñuy weer fii ñuy weer kii bi lu jege la woon ba mu joxoñ ko ko moo tax loolu la moom mooy laay jële maa kaan na nabiin an yakuna lahu asra xataa na fi ardi loolu na ko yàlla waxee yedd leen ci yàlla wax loolu pare moo tax bëri na ci alquran foo xam ne yonent day wax ah, Omar wax bu bu bu laay gi ñëwee rek dëppoo Omar moo tax yonente daan toog si yàgg mu ne su ma yàlla yónni wutoon Omar ibn Xattaab la yónni <laughs> ci ay yu bëri ci <laughs> nga léegi nag moom moo fa des kon nag bañ jàppee abi yi mu bokk ci ñam jàppoon te yonentu bi léegi nee na leen ut leen lu ngeen njoto pour mu man leen a bàyyi ñi mënul am dara ñu jox leen ay xale ñu jàngal leen ba ñu mën a fer ijji booba ñoom ba ne di mën a alquran waaye mën a jàngal ba nga mën a bind te soo mënee loolu ci arab rek dana am loo man abiya si nag abu dara waaye nag léegi naa sayyidatuna Zaynab bi muy denc moo mujj dem jël caq boo xam ne ci yaayam Xadijatu la ko doon donneexoon ñëw jox ko yonent bi ne ko lii maa ko njotee sama jëkkër keroog bi yonent bi gisee càq bi fàttali ko Xadijatu ni ko daan takk jooy na jooy yu métti ndeysaanam waaye ci loolu nag ci biir lii rek bañ ko jotee rek ci diggante bi ci la laaya ja wàcc nag ne bis ni ki tey xaraam na ab xéeféer di dencati ab jullit bu leen leen may bu leen leen keeti wala tunkihul musrikaati xataa yu'minna wala amatun mu'minatun xayrun musrikatin walaw ajabatkum yéen du ngeen leen mën a denc ca noona yéen naka noonu tamit du ngeen leen mën a denc ca ne léegi nag ba nga xamee ne léegi def nañ loola nag am na ñu ne Euh, fekk na Zeyna bu jàpp na yadda ba yaddaam ja jeex bañ ko tasee moo tax moo ñu ne dañ ko takkaat ñenn ñu ne déedéet ca biir yadda ja ci la Abi Haas yi tuubee ñu mujj delluwaat ko Sëyb Sëyb moom delluwaat nañ ko ko ci la am doom yi ñu tuddee Umaamatu nga xam ne bi yonentu yi def fatxu Màkka moom la si porté woon ci gilimam ku yonentu bëggoon la bu daan julli da ko daan yenu bu demee bay rukkoo teg ko buy buy kiyaat eh, mu mu mu tegu ci gannaawam gi sëtam la woon ku bëggoon sët la moo tax léegi suma alu aboubacar waa kër aboubacar suma alu siddiq topp waa kër dëggalaakoon ba di aboubacar jaawo dikk nañ euh, wa umul muminina umil muminina ñëw na mooy naa Aïcha ndax boobu moom yonent bi may nañ ko ko waaye say seegut kon dafa mel ni ci ci ci aboubacar si lay ñëwee boo ko xamul nag alxisaanu mooy sang mooy ku sangeeku ka aw asmaaw ak asmaaw aw bi maanaa wa ba tey tamit asmaawu ñëw na waaye boo gisee mu ne xasaanu day bañ liñ ko tuumaaloon ak safwaan mu wan leen ne du dëgg mm-hmm. ndax tuumaaloon nañ ko wax ci moom wax yu ñaaw yàlla wàcce fukki aaya muy xadiisu ifk bi fukki aaya ak juróom benn ñu ne fukki aaya ak juróom ñaar seetal ca sayyidatuna Aïcha waaw comme lañ ko waxoon ci moom umu rawmaan umu rawmaan ñëw na mooy seen yaay ataahu indi na leen ataahu dikkal na ko bi jamee ci mboole seen ku leen indi abidullahi abdullahi abdullahi ibn abubakar moo leen indi im na woon na ko moom mi taaw dikkee akawoon xiiw la mm-hmm. kon moom moo indi ñii ni kon waa kër doomi Aboubacar de Abdoulaye moo leen indi moo indi Sayyidatuna Aïcha indi seen yaay Umu Rawman indi tamit Asmaaw bintu Aboubacar bintu Abibakar ñeen ak ñoom Seydou ak kii moo leen indi loo teg xasawaatu nabi xeex maanaam xare yonantu bi sabxun juróom ñaar la waa asiruna ñaar fukk bi xulfin ci wutee atat dikkee ne bi ci an solo yi xareem yi daal dañ cee werante dañ ne xareem yëpp yim teew ak yim xeex yëpp boo ko calculé ñaar fukki xare la ak juróom ñaar am na ñu ne ñaar fukk la ak juróom benn boo demee am nañu càpp sax ñaar fukk ak juróom ñett la boo demee si Hadj Malick mi ngi koy tënk ne wi ka magaasi yi yëx dii mu dafa ne yëx dii la ñoom mubri daan kabidan am na ñu ne kabidu la bu fekkee kabidu la mooy ñaar fukki xare la ak juróom benn am na ñu ne yëx dii la suba mooy gën a bëri ñaar fukk ak juróom-ñeent kon lay doon mm. euh, kon dañ ciy werante maam xalifa ne man daal li ma d'accord ñaar fukki xare juróom benn la yonent bi xare ci dundam yoo xam ne moom teew na ca am ci ñoom nag yu mu xeex léegi nag yi mu xeex na la lay limal nii fa mu yi way xeexam yi nga xam ne moom dafa xeex in turita boo ko nammee xam bu waatun ca xare yàlla fa usayru ca xare yàlla wa qablaha njëkk na ko abwaa abwaa ca xare yàlla dégg nga de su ca xare yàlla suma badarun topp badar ca xare ya la moom nga ci gën a xam wa fiyaa ci badar moomu sidda la yëkkateef binaaw tabax ba li diine ñeel diine bi suuf ci jaas yi ci badar ci lañ yëkkatee diine yëkkatee ko ci jaas yi ci la diine islaam yëkkati ko ba péncam yàlla dootu fayati fa sulaymun ca xare la fa qaynu qaax ca la sawiqun ca la xarxarul kadri ca la alxaaratul mooy lokki ga asahawaaw gay aji peeg ji baab euh, booba jullit ñi am nañ ci ndam goo xam ne gu rëy rëy la dégg nga de léegi nag boo demee ci sara yi xare bu nekk dana la wax la ko sabab ak lañ nañ ña ca dee ak ban weer la ban bis la euh, jan jamono la moo tax boo gisee sax nit ñi bëgg xam si maam xalifa bi mooy xare yi ndax ni ko waa ji sarxa dafa yéeme trop trop ba tax na téere bi nga gis koo xam boo ko doon jaaye fukki junne tey mu nangu la ko fay ndax xare bu ne ni mu ko détaillé dafa yéeme ci siira ni mu ko indee mm. ba tax na tey ñi nga xam ne sa ajuwuñ ci kër gi liñ mën ci téere bi sax dana dem ba ko ko aju ci kër gi sax du ko ci man fa nadirun cala umadu <coughs> imrin euh, dégg nga umadu uh-huh. imrin ca xare yàlla mm. mooy xare bi nga xam ne ndeysaan dafa daan doon ay saxabaam di sangu bi muy sangu nag si la ko xéeféer bu bu ko xawrusu bettee fekk ko fa moom hmm. bokki jaas ji ci kanam ne ku na traité ma rey la yonent bi ne ko yàlla mu tiita tiit ba jaas ji rëcc ko yonent bi téye jaas ji ne ko traité man la rey mu ne ko sag baax yonent bi ne ko doxal jéggal naa la mooy saatu imrin moom la maam xalifa di way fële ca diiwaan ba ne hudan qad hada bihi sax noonu kama ila alxaq min baadi dalalati xawrusu hudan qad dégg hmm. moo tax mu ne su ma su ma su imrin ca la kasaa ca xara yàlla xat naa la xamee na fii ci moom uhud moomu suhada wooy sahid ña amee nañ ci shahadatu ak sahid xare bu métti la moom mu nekk xare boo xam ne li ñu rey ci ñun lu bëree bëri la ñun ndeysaanam gaa yi saxaaba yu bëri daw daw gi nag ñetti xaaj la am na ñoo xam ne dañoo daw carrément ñëwaatuñ ñu dawoon te ñëwaatuñ ñëwaat abubakar ci la bokk am ñoo xam ne dañoo daw daw ba sori door a ñëwaat ñu dawoon ba sori door a ñëwaat Usmaan ibnu ci la bokk Euh, am ci ñoo xam ne nag ñoom dawuñ talxatu ci la bokk moom mu sa daw moom moo taxoon benn bis Ousmane mos naa toog rek ak benn ku koy café doomi bàjjanam bu doon léegi ne ko Ousmane fàtte nga sa daw yee keroog euh, xare gu mu ne ko ah, yàlla ne afallaahu yàlla lu mu jéggal lool ci fàttalikooti <laughs> yàlla ne la jéggal nañu lu ci sa yoonati <laughs> kon xare ba dafa tàngoon fa nadirun ca la riqaawun ca la dawmatul euh, dawmatul jandal ca la fal mustaliq ca la alxandaqu ca la al al al al xasinu mooy tataga waqaaw bay aji fekk mooy ci la ñu kasee dëkk bi mu wër ci xelaat boo xam ne nit ku ñu la ko joxe muy Salmaan Farisi yu ne ko ko ndax gars yi dañoo xëy rek ne daal képp kuy xéeféer jox nañ la rendez-vous tey ca yonantu ba ca Madina ñu fekk ku fa rek dal ci kawam benn yoon mu dee mel hmm. ni àdduna bi yëpp ne daal rendez-vous bi mooy dal ci kaw Sénégal kenn mënu ko xàttan léegi nag ci la nag ñoom eh, yonantu bi nag dajale ay saxaabam ne léegi nañ xelaat Salmaan ne ko ah arab yi de fas la ñuy xeexee te fas nag mënta mënta tëb kàmbu léegi nag kon nañu gas dëkk bi rek ba dëkk bi wër ñoom bu ñëwee seen fas yi rek duñ mën a tëb kàmb gi ñun ñu nekk ci biir dëkk bi ñu nekk ci biir kii bi kenn duñ buñ sànnee fet duñ jot te boobaa nag duñu am problème yonent bi ne wax ngeen dëgg ci la leen sas nag ñaari ñi ñu ne ñu sa seen fukki mètre ñuy gas ci lañ gas ba yegg ci benn xeer boo xam ne kenn mënu koo traversé luñ dóor rek seen jëfandikaay di damm yonent bi ñëw moo ji dóor benn essai am génn mu ne ah wan nañ ma état su ya mu ngi mel ni ba ñu ñay hmm. ba ñu xaj kon weexaay ba ak renceloo état ya hmm. ak saboté ga ci àdduna mu ne waaye wan nañ ma sama diina dañ ci yegg duuraat beneen kiyaan mu ne wan nañ ma bu Kisra ba duuraat ne wan nañ ma askandar hmm. dañ dégg nag gaj wa door a xar mu ne fii ñu wan ma yëpp sama diina dina fa yegg moom léegi na bañ defee nag gas noonu dugg ca kii gars yi bañ ñëwee rek mënut ñoon dañ faa nekk yàgg fa di lekk lañ amoon mu ji abi sufyaan war fa xamee ne xaw ma kan waaye man ñibbi naa ñaar ñoo doon jéem a kenn moo doon jéem a sax dugg ci biir kàmb gi dee foofu foofu la mujj dee waxoon na ne sax ku ma génnee ma jox téeméeri gëlëm kenn jullit ñu jomb lu génnee ko fa Omar ibnu Abdul Wuddi moo def sob moom ba ba tëb kàmb gi ci la léemoog Ali ibnu Abi Talib ci xare bu siiwoo nga dégg Ibou Sakho di nettali ci boobu la xewee woon moom tamit Omar ibnu kenn ki moom da doon jéggi farut a jéggi fa dafa daanu fas ci kàmb gi fa la doxee bee yàlla dimbal na ko ba jéggi na mu ne Aliou la ba muy xeex ak Aliou Aliou ray ko moom tamit ci xare boobu la xewee woon loo teg su ma jaawoo topp dikkal nañ Quraysa ta banni Quraysa moom tamit ñëwal nañ ko xam nga ñoo doon yëhoot yi dëkkoon ak yonent bi nekk ñu bon ak banu Nadir façon nag yonent bi kóllëre mujj gi ñu mujj xor yonent bi ci xor goo xam ne gu bon la fa banu lixyaan tamit ñëw na fa waadil quraañ ba tey kasaa naka noonu jaa kasaalika naka noonu jaawo dikk nañ yëpp ca xarira banu quraysa banu lixyaan ay yahood lañ ak waadil quraañ yooyu yëpp dëkk lañ ñuy soriw yonent waaye quraysa te ñoom ab famille lañ boo xam ne ñoo dëkkoon ak bi ci biir Madinatu Munawara ñii nag ñoom dañoo dëkk ci dëkk yi leen ak Madinatu a nekkoon ay yahud ba ñu Banu Lixyaan ak waa Waadil Qura dégg nga euh, fa Xudaybiyatun Xudaybiya tamit ci xaree la waaye mooy rek bi mu bàyyeekoo Xudaybiya mu ngoog Xudaybiya ci xaree la mooy bi mu bàyyeekoo ca atam juróom-benneel ma Madina nga day dem màkka dafa faa namm pour ziyaara ji kaaba ga waaye xeex taxut koo jug gaa yi nag gaaw ko foofa euh, moom la laqad radiyallahu anil mu'miniina ñu la wàcc ba mujj mu jaayante gaaye foofa ci xase bu xisa bu gudd fa xaabatuhum seen gottu ba ca xare yàlla xaybar ca la euh, loo teg fal fatxu fatxu màkk nag moo ci mujj moo tax xalifa ne huwa moom am rii gëñ naa sama tund mi almunaam mooy mbébét la wax ju rafet la mooy maanaam fatxu màkk ba mu xasee xam rek coono jeex na ndax lañ bëggoon yëpp mooy màkk hubbeeku rek keroog ba màkk hubbeekoo rek ci la xare yi jeex xare boo déggati mooy ba yonentu bi dëpp rek jaar ci banni hawaasin xoolee nag yooyu waaye yu ci nekk rek day day di jàll rek ba ba ba ñëw Madinatu Munawwara waaye mbébén ma dëgg moo doon fatxu Màkka keroog ba Màkka hubbeekoo rek ci la yonentu ne laa hijrata ba'da al-fathi léegi mbir yi xamatul laqatut lépp lépp lépp lépp leer na loo teg ah fa xunaynun cala fa taayifun taayif yi ba muy dëpp la umratun dégg nga nañ ko mooy umratul qadaa mooy umra juboo ga hmm. suma ma tabuuk hmm. topp tabuuk ca xare yàlla hmm. wa arduha suufam sax xaraaw aji tàng la mooy bi mu joxee rendez-vous tabuuk euh, lam laaj ci alal mënu koo def ah, ku ci dimbale bañ mën a dem mooy mooy Usmaan ibnul Affaan moo taxaw ne àllee jësa man laa jësa la ut lu mat juróom ñeenti téeméeri gëléem ak juróom fukk mottalee ko juróom fukki fas muy junney war ne yéen ñëpp li seen jaaseeg seen warwaay yëpp maa ko res ci la yonent bi julli joxe rek safa wéetar di ko ñaanal ba ganaar bi sax keroog la wax ne laa laa yaduru Ousmane maa faala baadal yowm amul dara lu mën a lorati Ousmane gannaaw tey moo tax moom li mu xamee ngërmande yàlla kenn mënu ko wax dañu ko jëlee ci ñuqi rek di jox yonent bi su ma salla topp bocc na suyoo fa jaasiya fii tisin wala nga ne xadara teewee na Moustapha kuntaan naka bi haasi ci jamian wala seen ñaar fukki xaay juróm ñaar yi ma limal la yëpp yonentu baa ngi toog yéen si lu di wàcc na sunu ndimbal xaytu kaanu fu fi nekk li waaw drapeau bi ndax mu nekk ndimbalal yàlla wàcc fa hmm. waaye nag ci ñaar fukki xare juróom ñaar yi da hmm. la ciy génneel juróom ñeenti xare yoo xam ne ci la bokk jaar ci xeex xam nga teew ak xeex duñ benn kon ñaar fukk ak juróom ñaar yëpp teew na ci hmm. waaye ci biir ñaar fukk ak juróom-ñaar yi juróom-ñeenti xare la ci yonent bi xeex juróom-ñeent yam bokki jaasi nag xeex lay wax si nii sàlla bokki na jaasi fil fati fatu makkata mm. wal muray saxi mm. bokki na fa jaasi mm. badrin bott na jaasi xiina xaalat waxtu ba nga xamee ne xor na xuraysatu banni xuraysa al asqiya ñu texe xadiña ba yonentu bi génne leen dëkk ba keroog bokki na jaasi uxudun uxud génne na bokki na jaasi xaybarun bokki na jaasi fa xisnu saqifin bokki na jaasi xiina altaqa waxtu ba nga xamee dajee na alquranaawu noon ya fil xandaqi ci xandaq keroog yonentu bi bokki na jaasi fa xunaynu xunaynu bokki na jaasi waadil qura bokki na jaasi sa nadiru nadir bocc na jaasi xaabatun gott ba bañ fay xeex bocc na jaasi te mat mat na tisaatun juróom-ñeenti nukaraaw ya di way ndend mooy yu niroo yi mm. yii mooy juróom-ñeenti xale yi nga xam ne dañoo niroo mm. yii mooy yu mm. yonantu yu bokk jaasi waaye li mu bokk jaasi yëpp kenn nit la tu mos a rey ñu ngi ko rey ci xareb Uhud muy ubay ibnu xalaf mooy nett li xissa ba ci waxtaani fajar yi léegi nag dafa am ci xare yi xare yoo xam ne moom nag demut dafa yeble moom la ñu tuddee saraya jamoo sariyati loolu moo gën a bari mën na juróom mën na ñeent fukki xarit juróom-ñaar hmm. yoo xam ne yonent bi dafay ñaanal saaba yi rek jël benn capitaine rek wala benn général ne na ko yaa jiite xare bi hmm. dem leen ngeen xeexi hmm. moo tax mu ne wa sarayaahu ñàngalam ya arbaxoona ñeent fukk la wa sappoon ak juróom-ñaar asbatat xaa saxal na ko fi si ki siira xodamaaw ñu jiituña juróom-ñeenti ñeent fukki xarit juróom-ñaar ci dundam moom moom la yónni kon boo calculé xare yonent bi yëpp dangay jël ñaar fukk ak juróom-ñaar taf ko ci ñeen fukk ak juróom-ñaar su boobaa dina la jox lu mat juróom benn fukki xare juróom-ñaar fukki xare ak ak ak ak ñeent kon yonent bi li mu samp xare ci dundam ci sa kii na ci dina ji de waaw juróom-ñaar fukki xare ak ñeent la yonent bi def ci dundam ci yëpp nga xaaj ko nag ñeenti xaaj nga nga xaaj ko ñetti xaaj juróom-ñeent ya ci la bokki jaar ci xeex la des ki ñaar fukk ak juróom-ñaar ya boo ko génnee ci juróom-ñeent yi ci la teew waaye xeexut ñaar fukk ñeent fukk ak juróom-ñaar yi dafa yeble rek waaye moom demul xeexut mooy mooy moom mooy ñaan gaay dem léegi nag xajja xaj na léegi dañuy wax nag ay xajam ci lay jeexalee bunt bi xajja xaj na min qabli hijratin njëkk gàddaay jiima xajjaatin maanaam ñetti xaj avant yonent bi di gàddaay xaj na ñetti xaj waaye booba nag xaj ak yonentu yàlla Ibrahima gi mu doon rek la daan def hmm. wa kullun ñoom ñëpp ixtilaaw ak yëkkati li dén ñeel dén fia coom wala nga ne wa kullun ñëpp li dén ñeel dén fia coom ixtilaaw yëkkati ko hmm. mu ne mbooleem xare yooyu na wax dëgg yàlla diina yëkkatikoo na ci hmm. suma suma gannaaw ga min baax di xajjatin gannaaw xaj li daa ngir tàggatoo def na xajjatul widaa gannaaw bi nga xamee na nag léegi dem na gàddaay wenn yoon rek la xaji te mooy xajjatul widaa mooy xajjat tàggatoo ga xaj googa nag daggati yuuxu na al ardu suuf xendaa foofale wasamaawu asamaan ndax aj gi ci la def discours bi nga xam ne lim soxla woon lépp ci la ko dénkaane hmm. aj googu ci la tàggee boppam hmm. saxaaba yi yenn yi di ree ne addina ji mat na al yawma akmaltu lakum diinakum ñu mag ñi di jooy ne leen lu mat kay day manqué rek comme yonent bi mën na li muy tekki mooy diina ji léegi léegi te yonent bi bàyyi ko hmm. wala woo ñeel na ko xayri xaj yi la dul xajam ya umrun ay umra umra na ay umra xad la xamee ne mi rabbi ci borom bi ci umra may yoo xam ne lu bëri na lool am na ñu ne arbaxun ñeent xat saxat wér na wa qiila am na ñu ne salaasu ñett xat saxat mooy wér waaye wali kulin ñeel na képp min haas yi ci yi an solo maanaam ku ne ñett la da ko mën a wutal ay lay ku ne ñeent la ti mën nga ko wutal lay dafa am ñu ciy boole maanaam uh, umratul xaba bi uh, umratul um, umratul kii ga xodday mm, mm, bi ga waaw mooy umraak jubóo ga am nañu bi dañuy jum du ko firee umraak fay xam nga umra sunna la kenn du ko fay mm. umra xadaa umratul xadaa umraak juboo ga lañ koy firee te mooy ci la signé accord ak Suhayl ibn Amr nga xam ne moo doon ambassadeur ñële euh, ñi wax ak yonent bi ne ko danañ la may boo déwén ka mën a ñëw ci dëkk bi waaye ren am nañu nag lim lim umra boobu bis boobu muy umra moo tax sax dañoo mujj ràcc seen i gëléem xewee ko mun nga mën ngeen dem léegi dañ la yàlla dañ leen bindal yool booba waaye lu ci mun di xam ñeenti umra yëpp ku loxaa ñoom ñëpp euh, fii zi fii fii fii zi qeexdatin ci zil ci la ko tàbbal mooy wéeru digg xar xakkaanit pine za lii man ki nga xam ne loxoo ñal na ko naa naaw ak sonne fii am ri nabi ci mbiram ñun boppam la ci nam koo xam ne mbiram yëpp mooy sonne mbiram yonent bi rek moo wax ne ñeenti xomra yëpp ci weeru digg ci la ko yonent bi dugal bud nuhoo gëléemam ya fii sal xaj ci xaj ji te mooy xagitul wi dox ga ru si niihi moo tolloog li mu xatam ya wagasa naka noonu mis lu budu niihi kem gëléemam yi la mu taqaaw ñuñ goreel ña maanaam xajam gu mujj gi nga xam ne moo tolloog juróom benn fukki xatam ak ñett ci dundam yonent bi ray naa juróom benn fukki gëléem ak ñett jox ko foqaraaw yi masaakin yi waaye tamit aj ji yonent bi goreel na juróom benn fukki jaam ak ñett pour libérer ko loolu nag bu amul lu muy tekki rek mooy dafa cee jublu feet dundam gu barkeel gi dundam gi dafa barkeel ba yàlla gën ci ne la amruka innahum la fi sakaratim ya'mahun gën ci ne wal asri innal insana la fi xusrin moom tamit dundam googu mu barkeele ko mu maanaam mu mu colorelee ko feetoo ko euh, ray ci juróom benn fukki gëlëm ak ñett boole ko goreel ci juróom benn fukki jaam ak ñett mu toll li dundam ko Aliou sax la ray la woon gëlëm ya waaye lim bi mu ko joxoon manqué woon na loolu waaye Aliou wa xiir rek far ba ray gëlëm yi toll noona waaw ngay wax ne awlaadu nabi doomi sayduna muhammad yi sabaatun juróom ñaar lañ bi xulfin ci wuutee aw samaanin wala juróom ñett aw sittatin wala juróom mbenn kuramaaw ñu tedd ña waaye lu ci mën daal ñëpp a tedd ñi dañ ne doomi juróom ñaar lañ ñii ne juróom ñett lañ ñii ne juróom benn lañ aw zaadu nabi doomi sayyidina muhammad yi sabaatun juróom ñaar lañ joxul fiñ ci wutee aw samaanin wala juróom ñett aw sittatun wala juróom mbenn waaye lu ci mun di am ñoom ñëpp kuramaaw ñu tedd lañ ñi wax na juróom-benn lañ wala juróom-ñaar ak juróom-ñett dina feeñ ci li ñuy firi si nii. Mm-hmm. waaye bala caa feeñ nag dinaa la wax xaasum niñ koy dàkkantalee ñaata xat la dund nga xam ne mooy taawam bu góor. Mm-hmm. xam lool moo ko ci mag. aasa dund na amay ni ñaari at xaasumun xaasum. wa huwa moom man mooy ki nga xam ne xat kannati dàkkantale na Moustapha kuñ tànn ko bii ci moom atqiyaaw ñu ragal yàlla ñi. Mm-hmm. ñu ragal yàlla ñëpp ci moom lañ koy dàkkantale di ko tuddee Abul Qasim. waaye moom rek moo dagan noonu loolu daganut kenn ñu koy abul xaasim sallallahu alayhi wa sallam benn dooma ngoog tayibun tayib li firi aji teey taahirun taahir li firi aji laab xumaa ñoom ñaar laqaba abdullahi ñaari dàkkantale abdullahi lañu kon abdullahi rek a am ñu ko daan tuddee abdullahi tayibun abdullahi taahirun ñu wax ne nag juróom-ñett lañ dañoo jàpp ne tayib tur la taahir tur la bu fekkee ñooñ dañ nekk juróom-ñett dégg nga de te euh, allazi abdoulaye bi nga xam ne la ñeel na ko aliyaaw ak kawe la am na ñu wax ne fa taahiru taahir di firi aji laab aminu ku ñu wóolu ko axuuhu mbokkam abdoulaye la kon abdoulaye laqabam mooy tayib taahir di am mbokkam wali saa ngir lii daal xattaraa dafa la dëppoo asmaa tur yi ñu ne kon ñu wax ne kon juróom-ñett juróom-ñaan ñett lañ boo boo ci boolee boobu day nekk juróom-ñett boo fekkoon da ngaa defoon tayib muy tur taahir tur kon juróom-ñett doom lay xam lu ci mën di am maata génn na àdduna kulun ñoom ñëpp xablal bulooxi njëkk ñuy mësoor sabi yan mbir mu ñuy xale masqatu si rotiwaayu bopp ba mi num ca ñoom bat mooy màkka mooy ñoom ñëpp ñëpp màkka lañ juddoo xayru ibrahim ku dul ibrahima mi nga xam ne maariyaa ko jur moom de istadaa ak sàkko naa leeree bi nuurin ci leer min mu xay yaawu ca xar-xaramam ba taybatu tayba ak zarraa u bay aji siiw moom de xar-xaramam ba moo leeral taybatul Euh, garra di Madinatu Munawwara loolu li muy tekki rek mooy Màkka la juddoo waxinu arab la kenn du xalifa ak ni muy waxee moom Maariyatu Xibt moo ko jur bintu Samoon euh, su ko defee kon moo nekk noonu dégg nga moo doon taaraab Sayyiduna Muhammad sa alayhi wa sallam euh, dégg nga loo teg Euh, Ibrahima moom du du xale la ndax mi ngi judd ci xatam juróom-ñetteel ma ca gàddaay ga kon moo bàyyam liñ fi fekkante fi fi mu gaañoo fi fi bàyyam gaañoo soriwut dégg nga de euh, euh, boo demee ci sayxul Buxaari yi wax na ne bi mu xamee dundam ba fukki fukki at fan la ak juróom-ñaar am na ñuy wax ni fukki fukki fukki wen fukki weer laa bëgg wax ak juróom-ñaar ñenn ñu fukki weer la ak juróom-ñett fi mu gaañoo ak yooyu dégg nga ci Medina. waaw moom la ñenn ñi ñaari at. waaye lu ci mun di xam mi ngi gaañu fukki fan bi mu fukki fan ci weeru rabiul awal ci la gaañu ca xatam juróom-ñetteel ma ca xatam fukkeel ma ca gàddaay ga euh, ma bàyyi mu bokk xat mu gaañu ngi rob ko ca baqiya loolu la dégg mu ngoog euh, sama doom la mi ngi génn àdduna ci nàmp booba mi ngi feragut waaye nag yàlla dana ko jox ñaari soxna yuy mottali ak nàmpam ci aljana sallallahu alayhi wa sallam inna ibrahim ibni wa innahu maata fi sadyayni wa inna lahu la zirayni yakum yukumilaani lahu radaatahu rada radaatahu fil janna léegi nag jigéen ña góor ña jeex nañ abdullahi la ak qaasim ak ibrahim ñenn ñu yokk ca tayib ak ta ak taahir ñenn ñeen ne taahir rek ka xam waaye tayib amut léegi nag mi ngi dugg ci jigéen ñi jigéen ñi amul werante ñeent lañ wali alil xidri aji nekk la ñeel ñooñ ber genn ba almasunaatu ñu ñoŋeel ña kaana nekkoon nañ arbaan di ñeent duuna na yi na walis na seen taar ba su jant bi bu la neexee nga nekkoon na li alil xidri ñeen ñooñ ber genn masunaatu ñu ñoŋeel ña arbaan di ñeent waaye lu ci mun di xam rafetoon nañ ba ñoo gën a taaru jant bi Seynabu Seynabu akbarul banaat yi moo gën a màgg ca doom yu jigéen ya jëmyaan boole seen wataliha dana méngi ko roqiitu roqiitu xas naa koy aji rafet umu soon umu kulsoon xat talihi na méng na leen fii maa ci la nga xam ne xat xakkaane tali na ko su mal bi taxatu topp lumb wa sahra way aji leer muy sayyidatuna Fatima kon ñeenti doom yi ñoo am werante ga mi ngi nekk ci diggante sëy na bokk xaasum ku ci mag werante wu tàng la ci borom xam-xam yi def dégg nga de ummu sibtayhi mooy ndeyu ñaari sëtam ya Fatima sayday ñaar ñay sang muy Xasan ak Useynu wa kam jaat bëri na bu dikkee an baawu solo yi bi tafdilil bidaxati ca gënal lumbuwa bëri na xadis yu bëri bu ñëwee dañuy wax ne Fatima gën ci li ko wax nag mooy doomam yëpp dañoo juddu njëkk nubuwa ga moom rek moo ci juddu gannaaw nubuwa ga te loolu moo tax mu am leer koo xam ne gu mag a mag la yàlla xéemal min jawaahiri ci wurus xattaxal la takkaayoona min sanaahu na ci seen leer ga naj mu biddiw wal jawsaaw biddiwu jawsaaw waaw xéemal maanaam soxna yu rafet yi nga xam ne ay wurus lañ yoo xam ne jant beeg weer wi ak biddiw yi ñu ngi ne bu taax léegi nag mi ngi commencé di détail bi wax kenn ku ne xam ñu juddu da nga ci mën a déggee sax ñu magante ama xasrin xatam fukk min qabli mabati taaha njëkk yónni sayduna muhammad wul da la jure fii coom Seynabu Seynabu xal yaa koy aji kawe kon mën ngaa wax ne Seynabu euh, bi yonent bi xamee fanweeri xat ci la juddu ndax yonent bi ñeen fukki at lañ ko yónni te ba mu teree ñu war koo yónni fukki at ci la bu juddu kon mën ngaa wax ne bi mu takkee soxna ak fi ko yàlla war sëgalee Seynabu juróomi at la foofu nag yàlla mun naa dogal ah, xaasum juddu fa ci diggante bi mais loolu moo gën a mën naa jaadu moom mu nekk deuxième deuxième doomam bismillah dégg nga nag léegi nag naa la wax kenn ku ne ko mayoon sa wajuha denc la waxoon nañ ko bi li abi xaas yi abi xaas doomi bàjjen la ci moom hmm. wasufat jébbaleef na ko mooy may nañ ko ko neex ma baax na saaka sifaafa googale jébbal hmm. wala ihdaawoog céet ga hmm. abi xaas yi nii la ñu mayoon Zeynabu mi nga xam ne mooy taawu sayduna Muhammad bu góor abi xaas yi ibnu rabia ummuhu mooy xaalatu bintu xóoylit kon mën ngaa wax ne yaayi abi xaas yi ak xadijatu ñoo bokk bokk baay Euh, dégg nga de léegi nag booba abiyaas yi tuubagul lislaam ci njëlbeenam daga noon nag jullit ab xéeféer di ko denc moo waral ñoom ñaar ñooy xé waa ji la kon sëy na bu tuub na waaye booba euh, xam nga nag ba euh, léegi nag waaye nag ñoom ñaar ñi sëy rek yàlla dogal nag abiyaas yi mii bokk na ca ñañ jàppoon ca xare badar juróom-ñaar fukk yooya nga xam ne yonent bi dafa àtte woon ci ñoom ne dañ leen a dañoo war a joxe njot léegi nag ab aviance yi amut sëy na bu mii di soxnaan doomi yonent bi mu mujj dem jël benn caq bi mu doon nee woon ca yaayam xadijatu yóbbul ko baayam ne ko lii maa ko joxe pour nga njotal ma sama borom kër gi keroog yonent bi jooy na jooyu metti ngir fàttaliku soxnaam soosu daan takk caq bi euh, ci nag ci xew-xew boobu ci la aviance yi door a tuub bi mu tuubee nag euh, wax nañ ne avant yedday sëy na bu di jeex ci lañ ko delloowaat sëy ba ñenn ña ne sëy ba jeex na man dañ koo tas tas nañ ko ba pare donte xam na ci waaye daal sëyaat nañ ferante gi mi nga xam ci ne dañ koo takkaat wala ndax dañ koo kiihaat xamale yenu na al Mustafa kuñ tànn ka umaamata umaama doomi sëy na bu la mi naa bu bàyyi ko ci sëy na bu fi salaat yi ci julli way naxaar na ko loolu al yaawu kawe la maanaam tu ko bëggoon sët la dafa bëggoon sëtam bi di umaamatu ba buy julli da koy xen waxaale yëkkati ko ci kaw buy rukkoo buy wàccee sujjóot wàccee xat ko ar dafa toggal na Moustapha kuñ tànn ka aminu kuñ xóolu ka xàlli yéen xàlli yow ma fatxin bi sa fatxu màkk ba walil amin ñeel na kuñ xóolu ka inhi naawu ak lunku bëgg sëtt mi yóbbu na ko xàlli mii nga xam ne doomi abi haasi la ak zeynabu keroog ba mu dem fatxu màkk gëléem nga mu da ko supporté waale woon mm. ñoom ñaar ñu bokk génn génn giléem gi sëgg nii pour mën a am place ci gëlëm gi moo tax mu ne ar dafa togg na Moustapha kuñtaan ak aminu ku ñu xóolu ko xal yéen xal yi yow ma fatxin walil ñeel na ku ñu xóolu ko inhinaaw ak lunk kon jàppal ne bu am naa ñaari doom yu mu la limal ak abi kenn ka jigéen la di umaamatu kenn ka mooy maanaam xàll yu mu ngokk euh, dégg kon kooku xisaam jeex na léegi nag mi ngi war a dugg ak yow ci roq yëtu li salaasin ñeel na ñett tali yooyu aman ci xat asraqat la jolle arjaaw wàll ya min roqiya ci roqiya kon gis nga yonent bi ku organisé woon a njureelam la mm-hmm. euh, li ñuy wax nef mm-hmm. ba tax doom loru yaay loru yonent bi maanaam invité woon na ko mm-hmm. boo seetee doomam yi kenn ku ne magante nga ak sa morom doon ñu bokk yaay ñetti at nga fanweeri at ci la gis taawam bu jigéen fanweeri at ak ñett gis ñaareel doomam bu jigéen kon diggéen magante na ñetti at waaye at mu jot nga am doom wala ñaari at yaay du ko fekkee doom tamit du ko fekkee dégg nga léegi nag euh, sa wëju waxaat denceloo nañ ko moom kii moom moom moom moom kii roqiyatu mm-hmm. bi xutbata ci xutbata xutbatu mm-hmm. doomi abi lahab la kon lii day dëggal ne ba tey xéeféer yi mënoon nañoo denc jullit ñi ci njëlbeenu lislaam mm-hmm. waaye nag fa daxaawu xoo na ko saqaawu ak texexat yi min abi gu ko ci baayam ilal firaaq jëm ci teqalikoo muy taf lu ko xoo wa daxaawu xoo na ko li zaaka ci lool la tabat yaddaa tabat yaddaa moo ko ko xoo mooy faaxil ja xaala wax ne haada lii hijaawu xaste la minal amini bàyyi ko ca kuñ xóolu ko keroog ba tabar ya daa abi lahab wàccee kii la euh, abi lahab xoo ñaari doom ya waxut bëtu ak waxut tay ñoom ñaar ñëpp dañu doon denc doomi yonantu bi kii doon ci roqeetu kenn doon ci umukul soom mun leen dugal ma yaakaar yàpp kii di seen baay euh, aw saar wàcc na ci moom mu may xas benn nag ànd leen ak seen soxna yëpp génn kër gi wala ngeen bàyyi seen soxna yi ñu génn kër gi léegi na waxut bëtu moom dem fase roqeetu seen diggante ba jeex sonn ñoo am doom dégg nga waaye dégg nga euh, ba mu ko fasee nag yonent bi jël Ruqayyatu may ko Usmaan ibnu Affaan moo tax mu ne su ma sunu nuuree topp ñaari leer ya alxayi kay aji xam kersa xabaahu may na ko xaadi yonent bi bi walaaha ci méngoo moomu tas ak bëtu wa neex ma baax na xibaawu may ga boo gisee mu wasafalee ko xay yu sax saxaaba yëpp Usmaan moo ci ëpp kersa am tax na mu mos bëtam mos a tege ci xawraam kersaam tax na loxoom nday jooram su koo teg ci xawram ku ne ba mu loxoom bu ma jaayam te yonent bi dama ko teg sama xawra euh, kersaam tax na guddi la daan gën di sangu te buy sangu day banku fay làmp ba mu ne bëggut a jàkkaaroo xawraam bu daan sol yére sax day day soppeeku day sol tuba mbub mi ba pare door a sol tuba ji nit ñi léegi xamatuñ kersa ci seen bopp waxuma a ci seen morom dégg nga léegi nag boobu moo taxoon yonent mos toog luppam feeñ Aboubacar ñëw nëbbut ko Abu Omar ñëw nëbbut ko bu Ousmane ñëwee rek mu defaraat na mu toogee woon sa laaj ko ko mu ne ko waaw lu ko waral sa li nga toogee woon defaroo ko sama bàyyi ñëw ak ak Abu ak Omar mu ne ko Ousmane yàlla da ko rus malaaka yi rus ko mu rus yàlla mala rus malaaka yi kon foog man mi yonentu yàlla dinaa ko rus dégg wata walla méngoo na Utaybatu moom méngoo Umu Kulsoom waaye maam xalifa laaj ne waxal yi ëllëfu ndax dana tàpp di yaawu leer xalaama lëndam ñu ne ko déedéet leer ak lëndam mënuñoo ànd doomi yonantu bi di umm leer la doomi abi lahab bi maanaam di otaybatu lëndëm la moo tax may nañ ko ko waaye sëyuñ loolu la ci bëgg a wax moo tax mun waxal yi ëllëfu ma di yaawu moom li ko waral dafa hëppal bi saar wi wàccee di xas baayam baayam woo leen ne leen du ngeen ma yaakaar yat ma kee moom dafa teey fase doom ja rek doomi yonantu bi rek xam ja kii nag dafa fekk yonantu bi ci mbooloo mu toog mu song ko di koo wax ju ñaaw ba xotti yére yonantu bi yonantu bi ne yow yàlla yàlla nga xir ci yaramam wi say xaj ñu xotti yaramam bi comme ni mu xottee sama yëre yi mu tukki rek dañ daan dem saam di jëg di njëggi ba ngay ñib si rek ñu ne mënuñoo fan ñu fan ñu ne dañu fanaan àll léegi nag ñu wëral ko yëpp ñu ne ah ñu ne buñ dee am problème waaye doomi buur bi di abila bu dee ci àll bi am problème mm-hmm. waaye def ko ci digg kii bi waaye daal gaynde yi ñëw ku ñëw rek kuñ fóon rek bàyyi la kuñ fóon bàyyi la rek baxi ci moom keroog moom la gaynde yi reeree moo tax maam xalifa ne saqa xotti na jaybal haadi mantoom yonantu bi wa azaahu mu lor ko laakin li fi nekk musi xan moñateef na silwahoo yàppam wa al du gaynde ya ak daraaw yooyu way met gaynde yi lekk nañ yàppam wa de moom mi moom mu doon jéem a kéer yonantu bi moo tax benn saay daan way ne man yarjiil ama ila ahlihi fama akilu subaxi bi raajixi xasan ibnu saad mooy ne mooy loolu mu ne xaw ma kuy ñib si ren de waaye doomi abi lahab bi du ci bokk ndax ku ku gaynde yi lekk mënoo ñib si ren ci tukkeem bi su ma sanaa topp ñaaree leena abu abdullahi bàyyi abdullahi sa fi koy xaritab yàlla ba neex ma baax na sanaaw tagg ga nuuree ni ñaari leer min ha ci moom ci moom la xamee ñaari leer abu abdullahi di xusmaan léegi nag fekk mayoon nañ ko roq roqiyatu yàlla dogal roqeetu génn àdduna mi ngi génn àdduna keroog xare badar moo taxoon moom sax demut ci dafa feebar yonentu bi ne ko des fi toppatoo sa soxna far mu génn àdduna yonentu bi ñib moo ko sang moo ko sàng moo ko jullee moo ko suul yonentu bi jaar ci xabru ba ñaanal ko léegi nag yëkkati beneen doom ba di umukul soom léegi may ko ko kooku tamit génn àdduna yonent bi di wër wet mbeddi Madina yi ne ku am doom na nga ko may Ousmane su ma xamoon téeméeri doom di ko may par benn muy gaañu danaa ko may ñëpp kenn du yonent bi fii koo fi may sa ñaari doom bu dee ñu gaafal la yo ko kenn du la may te jabar dégg nga de su ma umu topp nday ñaari sët ya sow ji àll nga xam ne mooy mooy jëkkëri àll yu ja euh, mooy soxna àll yu ko kon man am kuy àll yu man mooy ki nga xam ne tax wala dëddu na xan say fii wala si jaasim ja xuranaawu noon mu ne nag ki ci def nag mooy Fatima miñ may Siduna Aliyu Aliyu mi nga xam ne ñëpp a ko ragal wali xam si ñeel na juróom talli yooyu dana méng salaasi na fanweer xaaman ci xat min si nii ci xatam ya atal la dikkee loxoo ñeel ko sëhraaw sëhraaw mu ne maanaam bi Aliyu ku yéex a takk soxna la bi muy am soxna am na fanweeri xat ak juróom ci la door a am soxna ñu may ko Siduna Fatima Fatima nag ñu bari bëggoon nañ ko ci saaba yonent bi xaw leen caa tànqamlu Aboubacar bëggoon na ko mu tànqamlu ko. Hmm. Omar ibn bëggoon na ko mu tànqamlu ko. xam Omar nag mu gën a jël jël doomi xàll yu muy sët ba. Hmm. ba daana wax ne bëggoon naa yaay ja ci waaye comme am naa rek yàlla dogal na baax na kon. Hmm. moom nag dafa mu ne bañ ko waxee mu ne dafa am ku ma ciy déglu. fu la toog rek Jibril ñëw ne ko sa takk ga laa bàyyee ko léegi sa doom ji Fatima may nañ ko Xali ibn Abi Talib ko Xali amul dara même amul can sax. dafa mujj yonent bi ne ko ah foog nga càng mu ne ko ma dara mu ne kon de foog nga jaay sa bagage yi mu jël jaas jëm daan xeexee jox ko Abi Hurayra muy wër ak moom ci mbedd yi Usmaan moo xam ne jaas ji jënd ko ba pare mayaat ko ko ci loolu la ci la ci ne Seydina waaye sëy ba barke na mu ne xoqi da takkeef na ko fi sama ci asamaan lahoo ñeel ko ama ay din xatam fukk ak juróom min sinniha ci xati Fatima ya kon gis nga nit ki mën naa mat soxnaam lu bari kon gis nga xàlliyu magee na soxnaam si ñaar ndax booba ñaar fukki at ak juróom fukki at ak juróom la soxna si am Fatima kële am fanweeri at ak juróom kama xakkaa comme ne ko noonu ko dama ñu jiituñu la wax nañ ne Aïcha dund na tisaan juróom-ñeent waa Aïcha na ak ñaar fukk aman ci xat bi xilaafin ci wutee at dikk na bi ci an baw solo ndeysaan ku gàtt fan la Fatima moom ñaar fukki at ak juróom-ñeent rek la dund ci kaw suuf euh, moo tax bi yonent bi génnee àdduna benn weer mu génn àdduna ci la Aboubacar doole boole xilaafa ak zahiriya ak gu batiniya am na sax ñuy laaj ne waaw naka lay jigéen di mën a attinee xilaafa Cheikh na Tidiane Chérif wax ne lompañ ak jigéen ci yaram wala xem waaye xeggut ca rooxu ga rooxu ñëpp xem doole te ñaareel bi tamit moom yàlla da ko sos ci xuwatu ndax pom buñ joxoon yonent bi mu koy lekk avant muy rees mu bàyyi ko aljana ci la Sayyidatuna Fatima sosoo moo tax moom mu am leer am am doole am kartan goo xam ne bëri na ñoo xam ne góor lañ sax te mënuñu ko léegi nag sayyidatuna Fatima moom ay doomam la lay limal si wa banuha doomam ya muhassin saalisu sibtay ni mooy ñetteelu ñaari sët ya fadlan ngir baaxu kulluhum képp si ñoom ku nu jabaaw ñu tedd lañ wa kullu ñoom ñëpp ku nu jabaaw ñu tedd lañ kon muhassin ca turam ya la muhassin doomam la moo ñetteel xasan ak xuseynu zeynabu ca doom ya la su ma ummu kulsoom te doom yàlla aydan ba tey moom nag ay xusnin gu mu ci taar te xaaru dana lokk ko minu ci moom jant bi dafa rafetoon lool ba mel ni jant bi dafa àbbee ci moom taar moom ummu kulsoom dégg nga de ndeysaanam moom la kii mujjoon denc Omar ibn Xattaab ba Omar bi mu bëggoon a yaay ji muy yàlla sottilut ko mu mujj takk kii mu ne ah bëggoon naa yaay ji waaye yàlla sottilut comme am naa doom ji rek mel na ne am naa ko hmm. kon ummu kulsoom ummu kulsoom ixtaaraha tànn na ko omarul faruq omar mi nga xam ne mooy teqaliha kon dëgg ak fen saw jën muy soxnaam wa ni'mati baax na ndax maa wuqi wal ya doo ko xamoon mooy ummu kulsoom moomu ummu saydin mooy yaay séet xatiili ali addi yi mooy kañu rey ci ali addi yi dégg nga xutiaa daggeef na leen fii xinin ci benn diir reyeef na leen fii xinin ci benn waxtu waxum ñoom suhadaa way shahid lañ ndeysaan moog yaayam ñoo bokk benn bu heure buñ génn àdduna ci la ulamaa wu miraas jëlee ne ñaar ñu war a donante buñ xamut ku ci raw kenn du doon sa morom miire daanu seen kaw ñoom ñaar ñoom ñi dee ndox mooy euh, Umu Kulsoom ak Zeydu mi nga xam ne moom laa am ak Omar ibn Xattaab léegi nag Zeynabu Zeynabu ànda najli Jaafar ma ngi ca ma ma ngi ca doomi Jaafar ja wala nga ne Zeynabu Zeynabu sawjun soxna la ànda ànda najli Jaafar fa doomi Jaafar ba mooy Abdullah ibnu Jaafar moo doon denc Zeynabu mi nga xam ne doomi saydatu na Fatima la ak Aliyu wala ñeel na ko wu ci moom nag yàlla boo yéemal am naa wa ay doom xam ne yàlla jël jël jox ci doom yu bëree bëree bëri bëri dégg nga de kon moom jëlee na ci moom doom yoo xam ne yu bëree bëree bëri la dégg nga de loo teg bàyyi na loola ma ngi wër nag soxna ya udda limeef na azwaaju taaha soxnaa yonentu yàlla muhammad yi sallallahu alayhi ayun muy fukk ak benn walakin li fi nekk ay fadlin gu mu ci ngëneel xawatuxu làq na ko tilka nisaawu yooyu la jigéen def na kon jinaas bu rafet diggante ayu ak ayu mu namm ci bu njëkk bi fukk ak benn ndax alif benn la yaa fukk la comme ni ko maam alaaj Maalik waxee fële ne azwaajuhu ummahatul muminina xibaa moom xibaa la indi kon maam xalifa nee na soxnaa yonantu bi fukk la ak benn waaye lu mu ci ngëneel làq nañ ko ndax tiitaru mën dafaas yonantu may denc sabaqat hun na jiitu na leen lil maali ci kawe xuday jun xuday ju moo leen jiitu daf ko boole tasxiir ak tarxiir dégg nga de euh, xadijatun la woon boo ko tasxiiree mooy xuday jëtun mu boole nag léegi tarxiim ko wàññi baat ba gannaaw bi mu ko tasxiiree ne xuday jun wala xa aji nekk la ñeel ko am naawu ay doom min xayril wara jëlee ko ci gën ji mbindéef muy sayduna muhammad bëri na moom doom ya moo leen jur ku dul saydatuna ibrahim moom xadijatu boo ko réeree waasaratu dimbale na yonantu bi wa an faqat dundale na kula maalin bépp xalal fii daawu ci ngër mën a yonantu bi wa niamati baax na wasaraawu dimbal ga ndax ku dimbale yonantu bi la wax dëgg yàlla xamul morom su ma maata topp génn na àdduna na qablihi jirati taaha njëkk gàddaay ak yonantu bi bi salaatin ci ñetti mooy kon si juróom fukkee la xata yonent bi ci la génn àdduna euh, dégg nga wa usree musibaleef na ku na faaw saxaba ya ci génn àddunaam gi daal saxaba yi nag musibaleef na ñoom ci mm-hmm. ndax ki nga xam ne moo moo moo moo xaaroon seen kilifa gi ba taxoon ñëpp wekk ko moom yàlla jëlee moo taxaat ma naqari ba jàngoon nga ko ñu tuddee ko xaama xusnin comme ni nga ko jàngee woon ca gannaaw ga nga xam ne teg ñetti fan lañ ci teg mm-hmm. Abu Taalib génn àdduna léegi maam Xalifa wax na la dat ba juróom fukki xat ci dundab Seydunaa Muhammad ci la génn àdduna mm-hmm. njëkk yonantu bi gàddaay si Madina ñetti at dégg nga de moo tax at mooma sax lim naqaree tax yàlla defalee ko rañaan gi mm-hmm. euh, muy yéeg asamaan gisee boromam boromam yëkkati juróom juróom fukki julli jox ko ko muy wàññi ba ci juróom mm-hmm. baada asirin gannaaw fukk xalaw na yooyu woy nañ miñ ramadaan ci weeru koor kaana la xamee sawaaw sax ga min ha baxee ko ci xadija la dal jinaani faal jana maanaam xadijatu nag ba mi ngi génn àdduna weeru koor bi mu amee fukki fan ci la génn àdduna euh, dégg de waaye booba nag xóoraguñ weeru koor moom ñu ngi fi woon rek waaye booba booba xoor xoor weeru koor xewagul mm. du fi nag robeef nañ ko bil xajooni ci xajoon mooy sëgi madina ya mm. du na salaatin walis julli moom ko ndax booba julli wàccagut mm. julli xusuusiyatu ummati sayyidina muhammad la xeetu yonent bi rek ñoo jagoo julleeg niiw waaye yeneen euh, xeet ya génnoon a yi jiitu woon ci génn àdduna dañ lay sàng rek ñaanal la julli suul la waaye kenn du la jullee euh, moo tax yonent bi ci njëlbeenul islaamam amutoon julli wax nañ ne ibnu xajar bañ ko laajee dafa ne jullee ngi waat ki ñaare première ak ca gàddaay ga ci lañ ko door a euh, jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu commencé di jullee nii ba bis ni ki tey duna salaatin walis julli dégg nga diinun diine umruha mooy dundam ba ku baax la dundam lépp ci diine la ko jeexal wa taaba tey na li xaaw dajee ga waaye diinun diine mooy limab diine te mooy juróom benn fukki at ak ñeent umruha mooy dundam ba wa taaba tey na li xaaw dajee ga rafet na dundam yëpp diine la waaye dundam tamit lam doon rek la ko dund mooy ñeent juróom benn fukki at ak ñeent kon moo gën a gudd yonentu bi fan lu tolloog menn xat baxdaha gannaaw bi mu génnee àdduna moom sayyidatuna Xadija mbiram jeex na wax na loolu ci moom tudd ka taw at léegi ak wuute mu nekk mu ko ku taw yaten waaye weer wi tàng li muy tekki rek mooy soreekuñ dégg nga moom nopp lu ñu lakk muy takk euh, ñii ne boole ñen ñaari wax yi ne bi maanaam Aïcha la njëkk njëkk muy takk sawdatu waaye sawdatu nag moo njëkk ab sëy si kay euh, junne xadis dégg nga de ak ñaar téeméer ak fukk yoo xam ne moom kenn moo ko solo am na ci góor ñoo xam ne sax moo leen xëppale euh, ku baax la woon ku bari woon xam-xam la ku hitte hoohoon mbiru yonent bi la ba yonent bi daana ko joxañ na nañu jàppee suñu genn wàllu diine ci moom noonu xosoo nisfa diinikum min haadihi xumayra waaye ndeysaanam moom tamit bi yonent bi génn àdduna fukki at ak juróom ñett rek la am ba ni génn àdduna toogaatut ak génn jigéen ci kaw laal te dund na juróom benn fukki at ak juróom benn moom moo gën a gudd fan yonent bi juróom maanaam ñetti at su ma maata topp génn àdduna wal umru dund ba ah, ah, moom mu ngoog sawdatu hmm, ah, mu ngoog wahabat may na xaw xarraha moomeem ga li tuxsara ngir pangeef ko fii aswaaji tahaa ci soxnaa yonent boobu sawdatu lay wax sawdatu dafa màggetoon ba mujj yonent bi woon na ngir wekki ko ngir noppal ko mu jigéen nag moo ñëw ne ko daal man doy na ma puubare rek ma bokk say soxna ba dee ci ndax boo liggéey ma mën caa bokk ci àllaaxira ndax sama digg sama buum ak yow bañ a dagg léegi nag li nga war a ay ci man may naa ko Sayyidatuna Aïcha ci la fuqaaw yi jëlee ne euh, euh, wujji man naa may moromam wujjam ayam waaye bu ko mayee jëkkëram nag day niil bu ko mayoon jëkkëram rek day duñ ko duñ ko compter nga ca war a tegu rek la ca teg dégg nga de kon wahabat may na xarraha moomeem nga li tux sara ngir pangeef ko fi azwaaji taaha waxaakasa naka nii la kat askiyaawu ñu sell ña mm. waqadat génn na àdduna sawdatun sawdatu mm. wali diini faaruq ci ci ci xilaaf ak faaruq la mm. dégg nga de wa daw un leer bana ko goo xam ne taxasu dana bimpañ la waññeeku adduwaawu leer yi ah, guddi gu leer a leer la ci la ci la génn àdduna mooy sawdatu bintu samaata ibnu qaysi ibnu abdu shamsin dégg nga de Euh, moom tamit ndeysaan ku màggetoon la mi ngi génn àdduna ci mujj xilaaf ak sidina Omar moo tax nga dégg maam xalifa wala diini Faruq mooy mooy jamono ci nga xam ne Omar bin Faruq moo taxawee diine ji wala iqaamati diini Faruq ci la ci la ci la génn àdduna dégg nga de sawdatoo ngoog moom soroxuñu ay nettaluñ ci moom ay xadis yu mu jëlee ci yonantu bi euh, dégg nga de ñu koy takkati min màgget na lool kon ku gudd fan la moom tamit gis nga yonent ko takk ca juróom fukki atam génn àdduna bàyyi ko fi Aboubacar génn àdduna bàyyi ko fi Omar ibn Xattaab dem ba ca mujj ak jamonom mu door a génn àdduna kon mu xatam yu lu bëri la waaye nag baax da tisin gannaaw juróom-ñeent fi umri Aïcha ci dund ak fii taybata ca tayba xat kaana la binaa wa xarab dali nabi ñeel yonent moom ñu ko ko ci juróom benn at dana ko wax juróom benn mi na umriyaa ci dundu Aïsa waqa ala tardé alxaqadu takk ga la woo ñeel ko fil basxaa ci màkka xaakaane si na ko damaa ñu jiituñu kon màkka lañ ko ko mayee waaye nag maanaam amee juróom dañ ci jàngee tamit ne jigéen lu mu tuuti tuuti sariya may na la nga takk ko ndax ko doon ko xam euh, soxna su takk juróom benn at yaakaar naa ba léegi për yi rek ñoo ko fi def daanaka kon soxna tuuti du ko yàqal kenn ndax yonent bi moo tax boo see fukki soxnaa yeeg benn yëpp dafay jàngale façon bu ko takkee wutoon kenn du xam looy takk kim takk dafa fekk kooku suul ñaari jëkkër su ko defutoon kenn du xam loolu muy xattiiq ak hind naka noonu ku ñaareel ki mu fekk muy koo xam ne ndawe na ba kenn mën la wax ni mu toll ci benn at ku ñetteel ki fekk na musul benn jëkkër muy sawdatu non non noonu ngay demee kenn ku ne rek am na am ko da fekk loo xam doo ko fekk ca moromam ba fukk yi ak benn mat su ma maatat topp génn àdduna wa umruha dundam ba zaada xëpp ci man ñetti xat xan sinnihi ci xat yonantu ba wa hakasa naka ni la soxadaaw ñu texe ña maanaam gën naa gudd fan yonantu bi ñetti xat la bëgg a wax su ma maata topp génn àdduna wala umru dund ba sittu na juróom benn fukk ah keneen la de dafa jaawa waaw suma maata topp génn àdduna wa umraatu nëmba zaada ëpp na jiiman an si nii si xati yonantu ba euh, wax ak saa naka niira soo daaw ñu texe ña sa kii bi dafa lëj loo ci teg moom ruxaa tund ba xii na naama waxtu way nelaw ahmadou sayduna muhammad xayun la fukki xat ak juróom-ñett bi yonantu bi génn àdduna moom la Aïcha amoon ba mu xëy am 66 ans toogaatul génn góor ci lal mm-hmm. ndax euh, moom soxnaam yi mooy suñu yaay lañ mm-hmm. dina mooy yaayam mm-hmm. maa la woo ñëelul Aïcha ñëelul yonent bi kon bi kurun jànq xayraha kurun Aïcha ansaraaw kay xéeg bikkurul ansaraaw maanaam moom rek la am ci jànq boo xam ne xéeg la euh, mu janq rek bu ndaw ñu si des ñëpp yonantu bi jeeg la moo tax yahud yu bon yi ak ñi wax naan yonantu bi dafa topp bànneex nangam ak nangam ba am fukki fan ak benn bu doon bëgg bànneex ki lay takk ay jànq waaye ku dem ba takk ay màgget loolu xam nga ne kon da ngay jàngale rek ak ak yërëm jigéen ñi waaye jubluwoo ci woon bànneex du fi na robeef na ko bil baqiya ci baqiya wal xat xatma Euh, loo teg xayul euh, xayul xayul mu ngoog xatam xayu ci la génn àdduna ca gàddaay ga mooy juróom benn mooy fukki xatak ju ju ju juróom ñett ci gàddaay gi mm. laylatan guddi la nag mm. was daxat pour ko reew na bihaa ci moom arja wàlle was daxat tàkk na was daxat leer na bihaa ci moom al arja wàlle mm. mu nga kon mbiram mbiram kii nag moom jeex na mbiram mbiram sayyidatuna Aïcha jeex na amul doom wax na la lam dund li nag ak xadis yoo xam ne solo na ko wax na la ko hmm. mu des nag léegi la ko làq Moustapha kuñ tànn ka waxu xeexeef na en ah, fait cinquante huit ci la ci gàddaay gi ci la génn àdduna xanun ah, la duur xayun maayu sa génn àdduna dat ba ci gàddaay gi mu ngi tolloog cinquante huit jun nun juróom fukk la xaa ah, juróom ñett la su ko defee nag ci la yont bi takk nag beneen soxna bu ñu tuddee moom nag gannaaw yàlla eh, bàyyi ma ko wutal jëkkër moo tax pajeen eh, roq ngis ku reer la day wax ne jamono ji ku ci amut ku la lijjantil jëkkër sa mënoo koo lijjantil sa bopp doo am jëkkër nag ko eh, yaa dëgg di baax ñoom dina dem ci ñoom mu ñëw ci yonent bi kalaame leen ñëw ci yonent bi ne ko man kat sama ñaari xàndandoor yii di say xarit di samay xarit muy Omar ibn Xattaab muy kon soo ngi ma laa doon Hafsa maanaam lutli mu jël Fatima jox ko Ali waaye moom tamit mu takk Hafsatu kon li mu waxoon ñëw na dégg su ma maata dégg nga su ma bintul faaruqi baxda xunaysin xaasaha la ko làq Moustapha waxuqal xinaaw xanaaw zuwi zuwi jat denceleef na ko dégg nga zuwi denceef na ko min baxdi talaax yi defoo loolu rujaa ji day yàq rek rujaat fayleef na ko mm. min baadi talaaqi ganaaw fase bi wax yéen ci wax mm. wa waxala yaa nekk na ci moom sanaaw aw tag mm. minal ilaahi gu bàyyi ko ci yàlla moom na yonentu bi fase woon na ko ndax xisa ah, ba li ngay dégg ci suratu tahrim yaa nabi li ma tuxaarim ma allahu laka tabdagi mataata aswaajika yu mel noonu moo ko taxoon a jug ci moom euh, dégg nga fekk fa tàggoon yonentu bi yonentu bi abal ko mu dem léegi nag yonentu bi jël benn taaraam Maria ànd ak moom ca néegam moom nag mu wax wax yu ñaa kii yu xaw a kii ne ko ah, yow de li taxoon nga may mu ñëw rek fekk néeg ba tëju mu fëgg fëgg mu jige yonantu bi door a génn ak ñaq mu ne ko nag waa yow kay li nga ma doon bàyyee yëpp du dara lu dul rek bëggoon ànd ak sa taara bi si sama bis bi nga xam ne ñoo ko war a moome mu wax wax yu kii ak kii ba yooyee ci la jaaree ba yonantu bi fasewoon ko mm-hmm. jibril ñëw na ko nag mayaat nañ la sa xafsatu ja asamaane juróom-ñaar ndax bu ëllëgee ci sa soxna yi aljaane yi lay bokk mm-hmm. jigéen la goo xam ne ku mën a jaamu yàlla la daanu nelaw guddi te li bëccëg pëcc pëcc bëccëg da ko daan xool mm-hmm. moo tax daana puukare woo loola ne yéen de maanaam mm-hmm. mbokki yonantu bi ñooy seen goro waaye man yàllaay sama goro ba tax na su ma sama sama sama sëy bu amee problème yàllaa koy lijjanti dégg nga su ma maata topp génn xat na wala xamru dund ba sittu na dégg nga de juróom benn fukki xat ci la génn àdduna mm-hmm. xaaman ci xaat wa ma daa wëy na alxilmu xam-xam wa tuqaa ragal yàlla wa wa zakaawa ñaw mm-hmm. ndeysaanam ko ragaloon yàlla la mm-hmm. ku xamoon la bëri na solo hadis yum solo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moomu dégg nga ci xilaafaak Muawiya ci la génn àdduna dégg nga axaama ixdaaha tam benn wa arbain ak ñeent fukk hmm. ca gàddaay ga xawat xaa la ko làq jinatul xuldi hmm. aljaana yu béel hmm. xëy na taaba waxtu wattee alliqaawu daje ga euh, dégg de ci la génn àdduna dégg nga su ma waala topp méngoo na ko o dégg nga euh, umul masakina ndayi miskin yi taaxaa yonantu bi baax da abdullahi ñaax ma baax na wilaawu méngoo ga gannaaw ci si la yonantu bi dencaat beneen soxna bu ñu tuddee zeynabu euh, umul masakin dégg nga de Mm-hmm. haajara gàddaay na moom moomu hijra sëy na ñaari gàddaay yi mm-hmm. baxaran ci géej mooy Éthiopie wa baran ak jéeri muy Madina mm-hmm. wala ñeel na ko saqaaw ak tabe min bay nal anaam ci diggante mi ndeefi ko tabe la moom nag ndeysaanam guddut fan lam taqum saxut maa woo ànd ak yonantu bi xayra shahrayn yi lu dul ñaari weer ñaari weer la am ci loxo yonantu bi wala umru dund ba weer la ci ay xat guddut fan xuqa xeyeef na mi fiha ci moom bi saawu martial ko mooy bàkk ko lam mu deexut fi hayaat yi ci dund yonantu bi min nisaayin ci soxna gayraha ku dut moom aw xadijatun ak xadija aw maanaam wa alxaliyaaw koy aji kawe maanaam xadijatu ak moom rek ñoom ñaar rek ñoo génn àdduna ci ci ci loxol yonantu bi kon yonantu bi mu génne àdduna juróom-ñeenti soxna ñoo ko tëj ah dégg nga baax daa Abdoulaye gannaaw Abdoulaye xat xaasa làq na hindan hind dégg nga hind mii ne lañ tuddee maanaam umu salmata mooy doon ku bëri lu mu doon laaj yonantu bi hmm. Abdoulaye moo njëkkoon nekk jëkkëram hmm. ku ko làq nag ak këramul xalxi mooy faare ji ki gën a tedd ci mbindeef yi mus xetu ku mu gën mandu hmm. al ñaxtaawu kay joxe kon moom mii nag xaajara gàddaay na si eh, kintal hijratayni ku mu si ñaari gàddaay yi hmm. wa jaa dikk na taqdumu di jiitu hmm. avant na laxas ga innahaa ka loolu xal yaaw kawe la hmm. maanaam buñ la laajee madinatu munawara bay gaa yi ñëw di gàddaay si gëléem bu jiitu woon mooy gëléem gi mu salmata waroon moo jiitu ca gëléem yi nga xam ne moo njëkk a dugg Madina suma maata topp génn àdduna bi taybati ci tayba wala umru dund ba dafun la mooy juróom-ñett fukki at ak ñeent moom nga bind rek. waaw mu nga euh, waxaabat fàddu na. samsuwaa jëntab xas naa ba egg taaw bi ci moom. fi mm-hmm. mu génn na rek ki la ci ki la